ndax dafa soppi Sonko ànd ak Ousmane Sonko tamit dañoo noppi déggatuñu kenn di xas wala di ŋaññi waaye du ne élection yi jeex na rek dañu war a fàtte dossier yi ndax dafay jéem a dem Ziguinchor nekk fa mais wala ndax dafay ànd ak gouvernement Macky Sall. Ousmane Sonko élection yi jeex na mu def résultat yu baax léegi nan lay doxale li tax ñuy laaj loolu mooy ne Ousmane Sonko dañ ko déggatul. élection yi ba mu ba semaine Ben déclaration rek la def Ousmane Sonko il a disparu des réseaux sociaux kenn gisatu ci internet bi kenn télévision dafa sonn fait wala dafa changé dafa soppi Ousmane Sonko kat la nit nit mi ngi ci xaalis bi ñuy yor muy CFA dañ ko fi war a jële mi ngi ci tubaab yi di ŋaññi ne suñu géej gi dañuy jël suñuy jën di sàcc suñuy jën mi ngi wax naan pétrole bi contrat yu ñu signé baaxul tubaab yi rek lañ ko jox. lu ne mi ngi koy ŋaññi waaye lu tax léegi Ousmane Sonko jékki-jékki rek noppi moo fi waxoon Mamour jàlloo dafa détourné 94 milliards nekkate yoo moom waroon na ci am. 12 milliards ndax dafa am ben compagnie bu mu sanc bu tudd Mercalex mu war am commission 10%. pour cent lu tax Ousmane Sonko wàcc Mamour Diallo Ousmane Sonko dafa ragal Mamour porté ko plainte Ousmane Sonko dafa ragal assemblée nationale woo ko ci commission d'enquête maanaam saytu xool ndax li muy wax dëgg la wala du dëgg Ousmane Sonko dafa jékki-jékki rek daal di ne ah comme léegi man man maay jiitu position bi maanaam ñuy wujjeeg gouvernement bi man maay seen ji nañu waxante dëgg Ousmane Sonko lu tollook six cent quatre-vingt lu ko ëpp Sénégalais dañ ko wooteel te ñëpp xam nañu Idrissa Seck ñëpp nekkoon ci ginnaawam di ko jàppale mais Ousmane Sonko dafa dem ci élection yi moom kese mu gagné Casamance lu doy waar li mu gagné Casamance ndax dafa soppi Sonko ñun ne bu ñu sañoon noonu lay demee mu bàyyi ŋàññi bi bàyyi xaste bi di wax ne dafa détourné Mamour Diallo dafa détourné te Mamour Diallo détourné wu ñun bu ñu sañoon nii la Ousmane Sonko di doxalee. ñi ànd ak Ousmane Sonko tamit dañoo ni noppi déggatuñu kenn di xas wala di ŋàññi ana Karim Xurum mi nga xam ne bañ ko fi jàppee ba mu génnee benn vidéo la laa gisugum mu def te vidéo boobu 39 minutes fanweeri minutes ak juróom-ñeent tuddul Ousmane Sonko benn yoon est-ce que moom dafa weddi Ousmane Sonko. ndax kat moom li muy nekk ci kaso bi yëpp Ousmane Sonko tudd ko est-ce que Ousmane Sonko seeti seeti na ko yaakaaruma ko ndax Karim ba muy lim ñi ko seeti limul Ousmane Sonko mi ngi wax ay nit dox seeti na ko mi ngi wax ay naar seeti na ko nit jóge na ba Touba seeti ko ñi di ko indil añ waaye Ousmane Sonko seetiwu ko tudd ko est-ce que Karim Xrum Xax dafa bàyyi Ousmane Sonko moom it léegi waxu euh, Imam Ndaw lay wax ak yeneen imam yi ñu jàpp kon dafa mel ne moom it waxutul waxu Sonko ñun daal li tax ñuy def vidéo boobu rek mooy dañoo bëgg Ousmane Sonko mu létt ñu wala mu firi ñu ndax ñun bu ñuy def vidéo defuñu vidéo pour élection pour am ay voix pour nit ñi wooteel ndax ñun dañuy défendre ku mel ne Mamour Diallo 94 milliards ñun en tant que sénégalais bëgg nañu xam lan moo nekk ci biir bu ñëwee da nga ci am 12 milliards ñun dañoo bëgg dem ba ci biir waaye du ne élection yi jeex na rek dañu war a fàtte dossier yi ñun li ñu bëgg mooy Ousmane ko mu génn mu leeral taxawaayam ndax dafay continuer di wax ne nit ki dafa ne quatre-vingt-quatorze milliards ne deful loolu mu mu setal deru nit kooku setal deram ñu liggéey Sénégal ñun loolu la ñu bëgg ndax dafay jéem dem Ziguinchor nekk fa mais wala ndax dafay ànd ak gouvernement Macky Sall liggéey ak moom ay laaj la yoo xam ne ñi ànd ak Sonko Sonko war na toog boo xam te ñoom lu leer Idrissa Seck bërki dem rek génn naa na di wax waaye Sonko ba léegi déggaatuñ ko ñun loolu daf lu xaw a jaaxal